na ñu ngi lay maa ngi leen sant di la nuyu tamit. sa engagement bi nga ñëwee ci Pastef ba léegi mobilisation d'envergure bi nan nga ci mën a gis. waaw non lii day wane nii rek nii euh, sénégalais euh, taxaw nañu tem ànd ak euh, projet président Ousmane Sonko. en tant que leader Pastef tey seen leader. au début Ousmane Sonko daf ne woon dina dem procès au début Ousmane ne woon dina dem procès mu dem ba ci biir mu mel ni euh, affaire dafa am leneen lu ci nuru mu ne li ci waxam wala ci jëfam daal mel na ni du dem procès lan nga ñu mën a wax ci lool non man mënu ma la ci wax lu bëre moom di nga ko déggal sa bopp moom dina wax lu mu war a wax ñun kay nañu toog ñu déglu ko rek de toute façon lu ma la mën a wax mooy moom moo yor dernière décision bi moom mooy wax waaye sénégalais yëpp koo ci laaj quatre-vingt-dix pour cent xam nañu ne lii du procès. Djiba bu ñu ñëwoon ci Cheikh Yérim Seck barki démb dafa génnee livre cité si seen leader lan nga mën a wax ci loolu. noo man du ma wax si Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck moom du wax si moom parce que jàpp euh, wax si moom amul lu muy andil Sénégalais